nee na mi ngi nuyu ñëpp. noo ngi ñëw ci woote mu woote. nee mi ngi ñëw ci woote bii sëriñ bi woote. ñaare nag daan nañ ko def lu jiitu lii. ñaare nag daan na ko def moom lu jiitu lii. xëy na mu gëj. xëy na nag léeg-léeg mu gëj. waaye du gëj xol. waaye du gëj xol de. adduna moo baaxee rek. sëñ Cheikh Ndigal nee na adduna moo baaxee rek. maanaam aajo ju dagg rek jeneen ñëw. nee na aajo ju dagg rek jeneen ñëw. mooy li ñu waaye du gëjee xol. nee li ñu fiy waaye du gëju xol. ndax bi wax dëgg yàlla ci woote bi. nee biñ ko woowee ci woote bi. mu am yitte yu newoon. mu am yitte yu newoon. ma ne ko nag fii nag ñoo bokk dëkk. ne ko fii ci nag noo fi bokk dëkk. fii laa juddoo Kawsara Fall. Serigne Cheikh Ndigal nee na fii la gënee Kawsara Fall. moom yàlla dogal. moom itam. fii la ko defee. fii la sëñ Modou Kara feeña jamono. yàlla boole ne kon loolu lu yàlla boole la. kon bu nu jàppalantee ci woote. ne kon bu nu jàppalantee ci. mën naa bañ a doon jàppalante ak maas sax. mën naa bañ a doon jàppalante maas sax. waaye yëg-yëg. ndax nit ki boo ko xasee yëg rek. ndax nit ki boo ko xasee yëg rek. jox nga ko lim moom lépp. jox nga ko li moom lépp. moom pour jox leen ko moom. nee na ñoom li nu moom pour jox leen ko ñoom. ñu woo leen ñu wuyu. ñu sant ñu ñu def. sant leen ñu def. ñu laaj ñu jox leen. laaj leen ñu jox leen. loolu waa yàlla ko cërale. loolu sunu borom moo leen ko cërale. dib murit. dib murit. miin nga lool miin nga lool yi. ba ñeneen sax léegi ñu ngi koy miinaale. ba ñeneen te loolu fii lañ ko royee. ñu ngi koy miinaale te loolu lañ ko royee. kon nag euh, sëñ Modou. sëñ Modou Kras sëñ Cheikh Ndigal nee na. damaa ci tool yi. daa jóge ci tool yi. ne woon bu ñëwee. dalay ziyaare. nga xam ni yëg na la. yëg sa bis. yëg sab woote. sab mooy teewaay bi. mooy teewaay bi. waaye xam nga ne xew-xew bi ci ñoom fan yi sëriñ Basiiru Faal alxuraan. ñu war koo ñaanal ginnaaw suba. moo tax sax ma am daal di dem. moo tax sax mu am yitte di dem. nee na daa waroon a toog bañ tasbaas bi. waaye sa ndimbal. yaa ko may loolu. ko ni woon mit du dem bi nga xasee ubbi ni nag ni leen bi nga xasee bi nga xasee ubbi ni nañ ko jox kàddu mu barkeelu nañ ko jox kàddu mu barkeelu mu ñaanal ma mu ñaanal ma ma yeewiku moo tax lii moo tax mu nangoo def lii ne kon sëriñ bi li ci war a xaj lépp ci kàddu cant ak yéene mënut a wax lépp sax waaye alhamdulilahi bismillahi rahmani rahim nasrun min allahi wa fatun qaribun wa bashir almuminina nafa almafasida ma almakari ila shiwaaya mukrim li jaari sallallahu wa sallam alayhi llahu fi jundi alhumatani amalahu rabitu fi lxatti wa fi tilawa rabhan yajrul bira walxawa من لله وللرسول وللسلام والقبول نفعني نافع نفعا جسبا لي خلب كل فاعس فانجسبا أنني الباخي لديه ولدى خير الورى مالي سفى الخلدا لشان شكري بعد شكري حامدا بلنت أعيد شابقا خالدا لي وجه النافع ما توجه لي ردا ولصفاه وجه أدية من المكرم الكريم لي أبدا خير الستر العليم وأدعاني كل لياد لم يكن من الذي اختاره الله بكن فرق بيني وبين الشر من كان لي في البحر ثم البر تنمو بشاراتي به وأجري وشانني عن الأسى والحجر حب نبي المنتخى نور مدر كرمنا بسرا لبدو وحدر قد قلت لي منك أجورا شافية وللجنان لا شمن العافية رافع شليا صلاة رافعة على المبارس الهدى والنافع يا ربنا صل وسلم سرمدا على السفيه شل وهي أحمدا بحق وجه الله والرحمن سل الخلق والأمور والأشمان وحق وجه الله من رحيم سل الفجر والباخي وسل الترحيم بحق وجه الكريم وشعي ليوم بري وديور تشعي شهيد سلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل رددتني ربي إلى المشاكر ولي ردت ربي كل كافر allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarada li sat bi anni qad jaaltu nafsi laka wadiatan fakak taabsi muctasiman billahi wa rasuli salli alayhi waltasux maamuli wajal manaami wa quudi misla kulla ibadatin ladayka musla min althawaabi wal ujuri wal aman waliyaab minka busharati shaman نافع صل أبدا وسلم على الذي بصر كل مسلم يا فاتحا بصر بالجنان صل على متحر الجنان نافعة لمسلم ومسلم عاصمة من مجرم ومجرمة بلا آفة ولا كدر في ولا بيني وبين كل عاد أبدا آمين يا رب العالمين وجل عسير أبيات خداء كل ما فاطني في السر والعلانية في كل ما ملا من السنين آمين يا رب العالمين توفيق sëñ bi nee na sëñ Modou Kara nee na li ko waral. ne li ko waral. ak ni mu ko waxe ak ni nga ko waxee. ni nga ak ni mu ñaanee. ak ni nga ñaanee. li muy Seex yoon a tax. ne li ngay Seex Rafaal ñett yoon a tax. nee na mi ngi koy bàyyi ak yow. nee ci teg dara. ah borom baax sëñ bi nee na ngeen gunge ko. ana borom baax. ah nii la. barke Serigne Touba. lii mooy yoon wi. waaye bi wax Serigne Cheikh ndigal sa taalibe sa xarit.